internet yi safoo sene info point net ak sene info international ñu leen di nuyu fas leen defal tënkub xibaaru tey samedi di juillet dañ koy tàmbaleek xibaaru biir réew mi ak tolluwaayu jàngoroy coronavirus Sénégal amati na ñeenti nit yu génn seen àdduna te li ko sabab di mbasu coronavirus bi loolu nag day yóbbu ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent day yóbbu kon ci 129 limu nit yi nga xam ne kon ñàkk nañ seen bakkan te li ko sabab di coronavirus bi bésub tey bi ñu def 959 test mu am ci yoo xam ne dañoo am jàngoro ji ba noppi euh, wàllu ko yeneen nit yu ngi saafanteel mu am 22 cas de transmission communautaire mooy wàll yooyu nga xam ne day am si biir nit ñi te sax duñu xam wàll yi nan la amee ba léegi bésub tey bi am na 47 patients yoo xam ne dañu cas grave muy ñoo xam ne seen wér-gu-yaram dafa sooxe loolu ba sax ñoom ñu ngi euh, réanimation bi fi jàngoro jógee nag bésub tey bi Sénégal compté 7272 cas positifs mu am ci 4713 yoo xam ne wér nañ 129 ñàkk nañ ci seen bakkan am na 2429 yoo xam ne euh, ñu ngi sous traitement xibaar bu tiis muy génn àdduna kii di Mouhamadou Bamba Ndiaye nekkoon fi ministre des affaires religieuses ci gouvernement bu ab Ablaye Wade moom nag génn àdduna kon démb euh, ci guddi euh, gannaaw bi nga xam ne daal benn feebar bu gàtt bu ko tëraloon la mu ngi génnee fële ca hôpital fan moom nag nee nañ robal robam kon wala levée du corps bi dinañ ko amal euh, tey jii ci samedi bi bu 14h30 jotee foofu la ci morgue bu hôpital Fann rédaction Sene Info kon di présenté njaalam di jëbal njaalam famille bi nga xam ne kon ñoom ñoo ñàkk li tam beneen xibaar la di keneen beneen nit tam bu génn àdduna bi yoon ci lamb ji la ñu koy wax Jules Balde Junior Jules Balde Junior nekkoon mbër fële ca Pikine moom nag mu ngi génn àdduna moom it gannaaw bi nga xam ne feebar bu yàgg bu ko tëraloon muy euh, métit tànk boo xam ne daal amee woon na ko te mu tëral ko lu yàgg bu ñu fàttali ko sax moom def na ay euh, sorti médiatiques yoo xam ne mu ngi si doon euh, laaj ndimbal finalement daal kon yàlla def na li ko soob jël na ba kanam. Union européenne décision bi ñu jëloon ne dañuy tëj euh, ne daal dañuy kon maanaam dañuy tëj Sénégal dañuy dañuy tëjal euh, espace aérien bi Sénégal maanaam kon Sénégal du benn benn avion du mën a jóge Sénégal dem ci Union euh, dem ci Union européenne bi muy décision boo xam ne kon UE jëloon na ko ci espace Schengen bi pour fermer Sénégal espace Schengen kon ñoom nag waa Union européenne dellusiwaat nañ ci décision boobu loolu nag ñu ngi ko amal gannaaw bi Sénégal daal. Sénégal ñoom tamit dañoo jëloon kon décision appliqué li ñu naan réciprocité maanaam kon bu fekkee ne ñoom waa euh, Union européenne dañu bëgg a tëjal espace Schengen euh, ñun tam rek Sénégal ñu tëj suñu ay frontières tëjal ko Union européenne gannaaw bi nga xamee ne kon jël nañ décision boobu ñii di Union européenne nag ñoom kon dellusiwaat nañ ci seen euh, décision fi mu nekk nii kon. espace Schengen mën nañ jàpp ne ubbil nañ ko kon Sénégal ñu fàttali nekk ba ci jamono yooyu Sénégal nag moom décidé na. kon ubbiwaat euh, lii di frontière aérienne am euh, bu 15 juillet jotee Union africaine nag euh, ñoom ñu ngi mettre en garde ci maanaam conséquence yi nga xam ne daal lii di mbasum coronavirus bi indi na ko ñu ngi wax sax ne lu toll ci cinquante milliards de dollars ñàkk nañ ko kon ci recette ci recette ci wàllu tourisme ci ngi ñetti weer yi nga xam ne kon daal mbasum coronavirus dugg na fii ci Afrique. bu ñu xoolee naka tolluwaay jàngoro bi ci continent bi ba bi mu fi duggee ba bésub tey bi euh, Afrique am na cas confirmé lu toll ci 447 464 ñi fi ñàkk seen bakkan te mbasum coronavirus yi waral ko toll na ci cent 10 883 240 214 858 kon jot nañ am mbas mi ba pare wér ci fi mu nekk nii am na vingt mille 221 723 ci ay doomu Afrique yoo xam ne kon ñoom dañoo tëdd ci lalu hôpital yi te mbasub coronavirus waral ko àdduna wërngal képp nag jàngoroy coronavirus kon euh, dal na fi 11 millions 93 mille cent 182 personnes moo am ci 5 millions 890 mille 52 yoo xam ne ñoom jot nañ see wér wante nag 525 mille 491 kon euh, ci ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan te jàngoroy coronavirus sabab ko. États-Unis nag euh, ñoom ñoo wéy di gën a sonn ci mbas mi booy xool sax ñoom jàngoro ji laal na fa lu toll ci 2 millions 847 mille 469 mu am ci 864 mille 762 yoo xam ne ñoom jot nañ see wér 131 mille ci ay doomu réew Amérique kon faatu nañ ci mbasub coronavirus bi dañ koy jeexalee ak lii di sport euh, joueurs yi nga xam ne nag ñooy joueur euh, meilleurs joueurs européens yi daal jàpp nañ ne kon ñoom dinañ nekk daal ci ay Euh, ci ki ci ci jongante bu métti euh, gannaaw bi nga xamee ne euh, dañoo nekk ay semaine de confinement nga xam ne dañuy manqué daal seen yaram dina manqué yëngu yëngu-yëngu ñu nar a reprendraat match yi loolu nar a nekk kon lu nar a métti ci joueurs yi ci joueurs yooyu nga xam ne kon joueur Europe la meilleur joueurs yi nar nar nañ am kon saison bu métti ndaxte bu ñu sukkandikoo daal ci ki joxe nar nañ enchaîner lu toll ci cent match ci cent match cent yoo xam ne kon nar nañ ko enchaîner ci ay football teyit lii di euro bi euh, mu ngi leen di xaar kon lii ñu leen leen tey ci ay xibaar rekk di leen jox dik daje beneen yoon. abonné leen si suñu chaîne xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim